Abdou Sané dalal ak jàmm ci euh, plateau matinal bu réew mi FM euh, ginaaw waxtaan wi ci kàllaamay nasaraan ñu ñëw ci kàllaamay kocc gi euh, dooree ko nag ak li actualité démb ba léegi muy kàddu yi ministre de l'intérieur jëmee ci Pastef ginnaaw seen opération bi ngeen lancé woon di dajale ay koppar boobale parti nag nee na mën na amaana sax ñu seeyal ko ginnaaw lii mu def te méngoowul ak yoon lanay sa tontu en tant que membre parti boobale voilà tontu bi dafa nekk tontu boo xam ne war na mën a gàtt parce que boo seetee ba seet waxu ministre intérieur dafa nekk wax boo xam ne jógul ci sagoom parce que fan yii passé a ngi doon dégg wax bu métti boo xam ne sénégalais yëpp ñoo ko ñaawlu mooy affaire ñaar tuur yi dem na ba UNESCO yabel bu ñu am ci suñu dëkk am fit ak ministre éducation woote benn atelier Saly nga xam ne pour seet lan la ñu mën a def pour dugal affaire yu bon yooyu ci école bi fii la suñu jàngalekat yi ak yeneen acteurs yi lànk bañ yemuñu foofu ñu a menacé ñu ne dañuy dem def tournée ci chefs religieux yi pour que ñu sensibiliser ñooñu pour won leen ni Sénégal mi ngi bëgg a yàqu parce que jikko bu bon bi lañ bëgg a dugal ci école bi fekk affaire boobu teew loolu yàgg nañ ko fi dégg mais tant que jàmm rek jàmm rek moo doon wax. ñu bëri dañu doon defe ne parce que ci Jamra la problème bi nekk mais léegi yematul ci Jamra jàngalekat yi seen bopp nga xam ne far ñu fenn wax jooju moo indi ba président ci boppam ak gouvernement bi ñoom ñëpp dañu dem ba ñu xam ni ñëpp leen jëppi léegi il fallait que ñu wut loo xam ne mooy nekk beneen bunt pour ñu def loo xam ne moom lu tubaab di wax contre-feu ci le ministre de l'intérieur nga xam ne moom déjà waxam mosul dalal xel parce que fii bu mu génnee la première premier waxam bi mooy premier conférence de presse bu mu defoon ci affaire immigration clandestine lu mu waxoon seclaire clair daf na nekk nekkuñu fii pour compter ay nit yi dee. Hmm. mooy xale yi doon dee ci gaz bi. donc ku mel noonu moom la ñu jël mu jiite mu indi beneen wax bu bees boo xam ne wax boobu amul maanaa mooy lan mu ne waa Pastef cotisation bi ba ñuy def noonu ak seen militants yoo xam ne ñu ngi nekk fii Sénégal ak ñoo xam ne ñu ngi nekk bitim réew. jaar bu euh, jaarul yoon et que dafay menacer di surtout parti boobu kooku bu ko waxee sax ku ko dëgg rek xam carrément ni waxu xale la. Hmm. voilà waxu nit ku matadi. parce que amul ci contexte actuel loi bu tere sénégalais boo xam ne mi ngi bàyyeeku ci biti muy participer ci cotisation boole ci defe naa Macky Sall tey bu fekkee ne am na koo xam ne moo war a respecter sunu mbokki yi nekk ci biti mooy Macky Sall. mais seet leen ci coronavirus bi fii ñi doon dee ci biti bañal dañ leen bañal carrément pour ñu transférer seen corps ñu jooy ko jooy ko ba au dernier moment ci le gouvernement bi bàyyi te teguñu ko seen donc tey encore ñooñu la ñu bëgg a dénier ba ñu reconnaître seen nationalité te loi bu bees bi def na diaspora quinzième région moo waral tey ñu am ay députés yoo xam ne dañ leen di fal ci liste nationale ak ci liste proportionnelle pour ñu nekk ay députés. d'accord léegi sénégalais bu nekk fii mhm. ak sénégalais bu nekk Mauritanie ak bu nekk France ñoom ñoom ñëpp ñoo yem. d'accord léegi lan moo sabab euh, euh, Pastef ak Ousmane Sonko euh, am doxalin wu ni mel maanaam lancer ab campagne ngir askan wi dugal seen xaalis ci seen activité yi. xam nga booy déglu le slogan Pastef dañu ne le le don de soi pour la patrie mooy lan bu fekkete ne yow tey da ngay ànd ak man dangay ngay ànd ak Ousmane Sonko dafa fekk am na loo gëm li nga gëm def na ko pour Ousmane Sonko yaa ngi koy def pour sa dëkk hmm. moo indi bu fekkete ne yow gëm nga ni li nga def sa dëkk la waroo xaar dara ci Ousmane Sonko waroo xaar ci Ousmane Sonko mu loué la permanence waroo xaar ci Ousmane Sonko mu jox la carburant auto pour nga dem rupture la rupture boobu moom la transformé en action tey noo mënee comprendre en huit heures de temps nga lancé benn appel pour lever de fonds nga dépassé millions ñaata nit ñoo ko mën a am fii c' pas possible. Hmm. donc bi Ousmane amee loolu loolu moo indi panique générale. au niveau looloo leen tiital gouvernement. d' accord tiital gars tiit. Hmm. gars yi gis carrément que Ousmane Sonko kenn amatul moyen pour arrêter ko. d' accord fii la dafa bañ tarixa yi nekk fii jàllul. Hmm. ñu ne Ousmane Sonko euh, moo def ci période parrainage bi ñu jàpp yaayam gendarme ñu ñëw jàpp violé këram jàpp yaayam ñuy lànk ministre intérieur di waat ne bu loolu mosul am et pourtant boobu am na ba gendarme boobu teg nañ ko loxo ba ñu ko. donc pexe bu nekk ñu koy wër léegi lan moo leen defee wax ko quoi Ousmane Sonko dafa nekk ñu nekk ci bitim réew ñoo koy armé pour mu mun a dem non non non Ousmane Sonko dikkoom moo ko may lu mu am nii yëpp. te moom lu mu am nii yëpp. def ko pour boppam daf ko def pour réew mi. Mhm. léegi donc Ousmane yéen campagne bi dafa am euh, xaalis boo xam ni moom ngeen ci si euh, euh, je dire ñaata ngeen fixé ni bu ngeen fa eggee da ngeen di arrêté ñaata ngeen di yóotu voilà ci ci ci bile. opération non ñun du ñu dañu ne. on fait confiance aux gens yow mi tey li ngeen mën a joxe mënu ma ko xam. donc li nit di yéene rek yéene nit ñi li ñuy xam ba yéene bi yëpp jeex ñu mën a xam ñaata la ñu am. mais amul amul pour fixer prix et cetera tout et tout. à titre indicatif souvent da ngay gis ñu naan wéy on fixe la barre à tel tel mais ñooñu ay waxu personnel la nii quoi mais ci yoon. dañu ne simplement le don de la partie kenn ku nekk ak fu sa doole toll toll ak lu la idée bi jaral yu loo mën a def nga def mhm. su ma la déggee itam ministre de l' du lii mu wax mooy tax ngeen wàññeeku ci li ngeen di def maanaam da ngeen di wéyal seen opération bi ci ban diir ngeen koy def fii ak ñaata temps ngeen di arrêté. Ah, ñun ma dañ koy def ba su gars yi sonné. Mhm. ok loo xam ne mën ko arrêté man mën naa toog dix mois après. d' kon ñeelul ñeelul nemmeeku tour bi rek am na yeneen activité yoo xam ne itam ni ngeen ci nar a def ngir financer. moom laa ma ne nemmeeku tour dafa nekk loo xam ne boobu. moo do kii bi benn slogan la. mais ñemeku tuur amul limite parce que yow mii tey mën nga toog six mois yàlla def tey nga am xaalis bu bëri nga nga ne eh, man maa leen jàppale man maa mm-hmm. cotiser lii mooy sama participation participation bi kay dafay nekk effort parce que mën na nekk ci xaalis mën na nekk ci action. mën mm-hmm. na nekk ci idée participation dafa bëri trop quoi matériel et immatériel. Mhm. lépp am. Mhm. voilà alors euh, euh, waxi ministre de l' intérieur bi itam nag Abdou Sané dafa indiwaat ci taabal ji coow loo xam ne yàgg na fi lool te muy lu lëj neexut euh, lijjanti muy financement parti politique daanaka kenn xamu ci fooy teg sa tànk ci wàllu woowa yéen lan moo ci seen position ci boobu lay question financement parti yi. non financement parti lu war a mën a nekk la boobu ak chef de l' yépp lu war a mën a la ma Euh, à titre indicatif ay nit yoo xam ne jóg nañu ci depuis mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit ku mel ni professeur El Hadj Mbodj ku mel ni ay ñoom Babacar Fall ñoom Valdiodio Ndiaye commission nationale de réforme des euh, réforme des institutions ñooñu ñëpp kenn ku nekk génne na fi idée pour wane ni lu ñu mun a def la te loo xam ne bu ñu ko defee te ci conclusion assise ñu ñëwaat ci mu am ay loi mais volonté politique moo amul te lu tax volonté politique amul c'est que ñi di ci nguur gi dañu xalaat ni booy financer parti yi da ngay may chance opposition mu am moyen parce que pour ñoom opposant warul am moyen comme ça bu am les moyens kii ko ëpp les moyens mën a régner loolu moo indi en 2014 Macky Sall ci biir parti mu ne ñu mu noonee yépp ku gañewul sa dëkk dinaa la wàcce pourquoi parce que pour moom ku mu ku mu nommé am nga xaalis boo xam ne xaalis nguur yi la am nga oto oto boo xam ne nguur gi moo ko moom am nga essence essence boo xam ne nguur yi moo la ko jox pour nga mën a politiquer ci loolu léegi opposant yi nga xam ne amul oto amul essence amul xaalis moom pour moom yaakaar nañu kooku war a gagné loolu moo indi mu ne en 2014 képp ku daanu ci sa dëkk dinaa la daaneel aussi ci poste bi ma la jox donc gis nga boo amee perception bu mel ni nga xalaat ni xaalis mooy doole ci politique donc noonu nga mën a raisonner loolu moo indi ñoom pratiquement nanguñu am volonté politique hmm. pour que ñu mën a trouver systématiquement benn affaire structurelle pour ñu def financement parti politique mais Ousmane Sonko ñëw na ci arène politique mu wane carrément ni ñàkk xaalis mënul nekk handicap que le monde d'aujourd'hui dafa nekk dëkk boo xam ne ci ay idée lu ñu lay fal ci ay idée lu ñu lay topp hmm. moo indi Ousmane Sonko nga xam ne parti am defagul sax même pas dix mu ñëw nii rek bousculer la hiérarchie ba tey pratiquement moom mooy le de l' opposition. Mhm. xam nga ni fu mu jógee dafa sori. mais lan la idée bu mu am moom la gars yi adhéré muy sénégalais bi nekk fii muy sénégalais bu la bu bu nekk diaspora. d' accord ñëpp ñëw ba ci moom mhm. voilà. juróomi simili moo ñu desee ñu ñëwaat ci kàddu président de la république yëkkati jëmee ci euh, sénégalais yooyu ngay wax euh, keroog 31 décembre euh, booba lépp discours déjà ci forme bi ni mu ko defee boo ko jàngatee looy gis. voilà discours boobu dafa nekk discours boo xam ne am na ñu bëree jot ñu ko seetaan pour la bonne et simple raison que bu fekkente ne yow tey président da nga nekk yàlla def na ba nga nekk président de la république booy wax ak sa askan bi da nga war a seet loo xam ne lakk boo xam ne boo ko jëlee dina la leer ni pratiquement ñu ngi ay atteindre dina mat au moins quatre vingt dix pour cent quatre vingt cinq pour cent et cetera majorité bi mais moom lan la pour allocution bi muy discours boo xam ne mooy bu vingt heures tubaab la koy defee toujours. bu paree ci tubaab du jéem a def benn effort pour traduire ko en wolof parce que bu boo defee sa discours dix minutes ci français mun na jëlaat yeneen dix minutes tënk li nga wax ci wolof mais mépris bu mu am ci langue ci wolof wala ci beneen langue nationale mais mépris bu mu am ci langue nationale tax na ba bu paree ci français pour moom pare na ci ku ko déglu sa problème la or bu muy dem campagne du làkk français tukkuleer lay làkk français wolof lay làkk séeréer lay làkk làkk bu mu dégg ko làkk parce que lan daf ko leer ni bu fekkee ne ci français lay jaar lay discours de campagne bi du ay Sénégal yu bëri duñu ko mën a comprendre donc loolu la tubaab di wax hypocrisie c'est-à-dire nga xam carrément ni lii mooy loo xam ne mooy li war nga bañ ko def di def leneen loo xam ne franchement yow gëmoo ko donc boobu benn la deuxième bi moom moo ne foog ñu gëm suñu bopp mais bu fekkee ne yow gëmul sa sa lakk da nga xeeb sa lakk ba nga defe ne lakku jàmbur moo gën sa lakk yow gëmul sa bopp munoo joxe ay leçon nit ñi pour ne leen ñu gëm seen bopp ñàkk développement Sénégal tey am na ci cause yu bëree du question xaalis du question ressource mais ñàkk gëm suñu bopp dañu xalaat ni ñun tuuti trop et que ñeneen ñoo ñu gën tant que ñu ngi xalaat noonu du mun a dem. ensuite ci beneen parti bi bu muy wax doo xam président mooy wax wala njaboot président mooy wax parce que foofu ñu ngi toog ak njabootam jabaram mi ngi toog doomam mi di toog donc ute na ñaar image yi bokkuñu boole ci moom moo tan ñoo xam ne ñoo ko war a interroger yi ak bu nekk léegi. président ci boppam moo toll foo xam ne moom moo xam yan journaliste yoo war a ñëw war a ñëw ak ñan ñoo warul ñëw ci loolu yëpp ñu ngi koy def ci tuuru république bi alors foofu defe naa même journaliste yi ñuy éviter ñoom ñoo warul nangu loolu war nañu toog ba ñun ñëpp ñu d'accord ci benn institution boo xam ne moom moo war a mun a toog pour mu jël façon yu mel noonu pour mu am ay critères yu objectif bu ñuy tànn ay organes de presse mais mënuñu bay président de la république mu toog foofu di tànn chaque année les mêmes organes de presse au détriment des autres loolu c'est pas normal dañu nekk ci dëkk boo xam ne mhm. il faut que ñu élever la justice au rang des priorités nationales te lii mhm. doxal président bi muy def nii ba léegi mënul wax nit ñi ci ban critère bi ba nga xam ne toujours ce sont les mêmes et les autres ne viennent pas. ñu ñëw ci wàllu fond bi ñaari simili ñu desee euh, discours bi ak euh, président surtout euh, thème yi nga xam ne moom la tànn wax ci noo ko jàngatee ak loo ci jàpp. bon discours bi amul maanaam parce que dafa nekk discours boo xam ne pratiquement amul dara lu ci baax mi ngi doon wax ci affaire jàngoro coronavirus yi di naan autorité état nangam nangam mais moom fàtte na ni moom ci boppam bi ñu nee barrière nañ ko respecté rassemblement bu mu am moom moo fi def rassemblement ci Saloum ci tournée économique bu mu def récemment ministre de la santé nga xam ne moo waroon joxe le meilleur exemple tey moom ak moroom moom ministre des infrastructures bu ñuy inauguré auto pont def nañu rassemblement xam nga nit bu fekkee da nga bëgg nag kilifa bu fekkee ne yow mi jëloo exemple bu baax sa kàddu mënul taxaw enfin pour terminer am na loo xam ne moom la ñu war a seetaat année bi 2001 ça commence très mal ragal naa mu nekk année violence. Hmm. ARTP fii la jóg di xoxotal ay journal dinaa damay couper seen signal parce que da ngeen ma ameel xaalis ministre l'intérieur quelques jours après topp ci dinaa damay xoxotal Pastef ay financement yoo xam ne xaw ma gis ngeen ni ñaar menace ñoo am ci ARTP la jógee ci ministère de l' la jógee donc deux mille vingt et dafa nekk deux mille vingt et boo xam ne kon personne hmm. mais xam nga le peuple sénégalais mi ngi nii dañu ne dëkku jàmm la hmm. bu fekkee ne a ngi koy agressé pousse ko dans les derniers dina la woon carrément jërëjëf Abdou Sané ñu ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte dalal ci matinalu réew mi FM tey euh, ku xelam màcc jëm ci wàllu environnement la ak mbirum géographie euh, nga itam yëngu ci mbirum prévention des catastrophes bokkoon ca parti démocratique sénégalais booba nga nekkoon député à l' assemblée nationale vice président groupe parlementaire tey nga bokk ci parti Pastef bu Ousmane Sonko ñu ngi lay gërëm Sané.